maaleykum sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. maaleykum salaam soxna si maa lay fay. bu baax a baax. delloo ziar naka ma. voilà fan yi nag gis nga dëkk bi nu mu tàngee ci coowal euh, ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr tuumaal bi ñu koy tuumaal yow gëm nga lool. non man pratiquement góoma loolu. exactement parce que ni ku nekk aussi tamit da ngay wax sa axulaay taala quoi man moom gis naa ne moom vraiment depuis yëf yi ba léegi solo ni yëf tëddee rek. da ngay xam ne nii vraiment li la cay dëgg la cay gannaaw dëgg moo ëpp man loolu la gëm daal waaw. yow lu tax nga nga ni gëmoo nii liñ koy tuumaal exact da nga xam Sonko carrément ou bien. non en fait ñun xamuñu ko mais ay nit lañu ay nit lañu yu am xel di xalaat aussi tamit euh, te lu doy ni lu mel noonu soo demee ba yëkkati ko di ko teg ci ay nit dafa war a nekk loo xamante ne aussi euh, vraiment. Euh, da ngay gis cohésion bi c'est-à-dire depuis départ bi da ngay gis incohérent yi dafa bari ci lu dol noonu boo demee ba di ko teg ci doomu aadama rek c'est parce que dafa war a nekk loo xamante ne nii xam nga loo fabriqué ak lu naturel dafa bokkul souvent euh, boo boo fabriqué dara ci biir wax ji da ngay gis day am ay faay wala booy tëral dara da ngay gis day am ay faay mais lu naturel du am benn faay day day facile pour nga def ko te ah. gis nañ daal vraiment depuis boobu ba léegi tey ñu wax lii suba ñu wax lale tey ñu def lii suba ñu def lale dossier bi koo ko jox mu delloole ko ainsi de suite ainsi de suite te ñun tamit borom yi xel lañu. maanaam kon yow sa njortu affaire bi dañ ko fabriqué du li nga xam ne moo am réellement. non loolu am moom loolu moo am parce que tamit xam nga fii kenn jékkul jékki rek ne lay rek ne cap ak nu mu mën a mel même bu dee benn la ci sa mbokk sax dina taxaw. te gis nañ depuis boobu ba léegi ana Adji Sarr ana Adji Sarr kan moo mën a wax fa mu nekk mais ana ay mbokkam xanaa Adji Sarr doone doone mbokkam existé wul. am na ay famille yu jot a ku ci mel ni magam bu góor ak euh, temps fan yii passé maa ngi gis si TikTok bi kiñ naan tantam la xaw ma yaayam. waaw mais kañ la ñu génn xam nga la problème bi nekk man sama doom wala sama jarbaat boo amoon problème boo mel nii mais man maa koy porté su fekkoon ne leer na ma ne ndeyam nekk fi baayam nekk fi. man maay taxaw plainte boobu man maay taxaw bind ko wala bu mu bu demee ba bind ko maay génn def déclaration mais pourquoi ñu toog toog toog toog toog boobu nga doog naan dégg nañ ne loolu c'est extraordinaire <laughs> loolu aussi tamit dafa doy waar. maaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ah, ñu ngi leen di fay soxna si. macha allah sëñ bi fan yi gis nga dëkk bi nu mu tàngee woon ci coowal bi nga xam ni tuumal nañ ko Ousmane ko ki nga xam ni Adji Sarr tuumal na ko yow nan nga gisee lool gëm nga ko wala gëmoo ko. non loolu affaire de politique rek laa ko jàppee woon de politique fan nga ko mais fii ni ni ni affaire yi déroulé ku ko xool boo deful li nga xam ne affaire de politique la. ni affaire yi déroulé comme maanaam. jarul ma koy wax parce que lépp ngi ci net bi lépp ngi ci média ñu ngi koy lire mais boo liiree boo comprendre nga xam ne lii affaire de deal affaire de politique mhm. nga gis. loolu laa gis ah politique nag mënul ñàkk mais c'est c'est dégueulasse ñu ko defee dafa dégueulasse loolu laa ci mën a wax. léegi fan yëpp passé gis nga xale yi nu ñu jugee jeunes yi taal dëkk bi loolu yëpp yow lan nga ci gis yaakaar nga ni loolu mooy solution bi ou bien mënoon nañoo doxalee ne waaw fii solution bi nag du woon loolu du yàq ndax ñun suñu suñu étiquette du loolu quoi du yàq du saccagé mais peut-être suñu tolluwaay moo moo yeggoon foofu mhm. mer. du woon xiif dara ah parce que Auchan yi ñuy yàq ni après ñoo koy utiliser waat weeru koor bee ngi ñëw da ngay dem ba beneen Auchan dëkk fa amee bu ko gars yi defee defuñu ko par par tayeef mais dañ ko def parce que dañ ko def dañ ko war a def ku sës xam ku sës boo ko doon dóor ba mu sës si miir tamit day obligé riposter nii la ah jeunesse bi dañu riposter rek. asalaamaaleykum sëñ bi. waaw maaleykum salaam soxna si. ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñoo fi la kii gis nga fa yi dëkk bi nu mu tàngee ci coowal Ousmane Sonko ak aji Sarr tuumaal bi nga xam ne aji Sarr jël na ko daal di koy teg ki nga xam ne Ousmane Sonko noo ko gisee ba xam yow gëm nga ko wala gëmoo. non affaire bi moom xam nga nit ki moom dañuy jéem a xool lu jëmale réew bi kanam xam nga te tamit dëkk bi metti na trop xam nga nit ki tamit ñun ñëpp dañoo war a bàyyi seen xel ci dëkk bi ndax tamit dëkk bi soo gisee gars di taal loolu jëmul kër. ñu ñëpp dañoo war a doon benn xàccandoo dóorandoo loolu mooy àdduna ñu jël loxo lépp bàyyi ko seen borom waaye suñ gisee ñuy taal réew bi ndax ñu réew ñu ñoo ko moom suñ ko taalee taal nañ seen bopp xam nga ndax ñu ñëpp suñ doon benn jël seen i yàq di dóorandoo ñu ñëpp xàccandoo Sénégal de jëm kanam man rek loolu laay ñaan si ndax tamit dëkk bi metti na metti na ndax tamit gis nga événement bi passé neexul ci téye. Mhm. te suñ jëlee tam ñu ne dañuy xeexaat wala naam saam dara du neex xam nga feebar bi tamit am na ndax tamit ñun ñëpp yàlla suñu borom moo ñu saak te ñu ñëpp fële la ñuy dem waaw kon ñun nañ rafetal àdduna bi rafetal réew bi na réew ñun ñëpp. Mhm. bokk maanaam buñ déggee ni nga wax ni yow li jeunes yi def daal di taal dëkk bi d'accord ci. non jeunes yi moom luñ def moom d'accord ma si moom niki moom mun nga ñëw. Euh, nga lii bañ taal dëkk bi ndax tamit fi lañ koy fekk maas fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi nga bañ dëkk bi waaw. d'accord léegi dugg nga léegi ci feebar bi yéeg nga nii vaccin yi yi ñëw na lan moo ciy sa xalaat ba xam yow tey jii di nga dem vacciné wu wala. ah man moom sama xalaat mooy su ñëpp demee moom damay dem man. dem léegi dangay xaar ñëpp dem ba pare ngay soogee dem. waaw moom instant may xaar ñëpp dem. Ah. léegi yow lu la tere yow nga daal di jiitu dem. non non xaaral gars dem rek. Ah, jiitu ma ma topp seen ginnaaw ma topp seen ginnaaw. ginnaaw waaw ah, kon baax na merci